الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه صلاة وسلاما وبركة تتيم بها ما قصدي بقصائدي وأقوالي وأقايدي وأبعالي ومرادي والنيات وكلامي وأمدائي في سيقنا ووسيلتنا إلى ربنا محمد إن محمد إن حبيب الله ينبكينا فخلنا الله بهم آمين يا رب العالمين barkeb Seexul Xadiim barkeb Seex Muusaa sëñ Kàbb Fall maa ngi ñaan ci sëñ Tuubaa ak xasaayit gi ak borom xasaayit gi ak ki mu ko tagg yàlla baaxee la baaxee ñu defal ñu dimbale yërmaan defal ñu gudd a wér yokk fa ñu wërsëg yi defal ñu sutura ñun ñëpp bañ jëf ba jëfal ñu ci doon sëñ Tuubaa barkeb Seex Muusaa Ka yéen murit Muusaa Ka laa mu laay ñeem ngi doole tuub li waji laay yéenu murit Moussa Ka laa mu laay nee mu ngi doole tuub ci barkeb sëñ Tuubaa ak sëñ Kàbb laay nee mu ngi doole tuub li waji laay nee mu ngi tuub bakkaare fi samaani delloo ci tuub bakkaare fi niswaani ngir bëgg wuy ñaari di saawa sàkkoor fukk ak juróom ñaar laa ko fas ci weeru koor ndaxte noom saadata daara yi ni te bu noom xaara yi ni mbaa naara yi ni mboolem fu Seex Bamba xawoon ci réew mi ci diiri ji laay bëgg a wax waa réew mi gannaaw bu mu bisee ba jaar daaru salaam fa dem ba gànnaar dem jëloon jaarim ne daam mu dali ñëw njur bel ba ñu bi Tuuba danaa ca xam le luy njëriñ sa boobaam ndax bamba noon na su may biir ci duniyaa loo mujj ñëw ëpp lu wi ca boor ya gaaw ba bamba xëye mbakke baari taabi ji gi gi li xidmatin muxtaari la bir yi riiri saayiran wa baatina gaaw ba bamba gonte daaru màgg na Cheikh bamba gonte na fa daaru jëm ndar daan ma mbaaxaan di ko wonaa dër dër fukk ak juróom ñeneenti fan di gaaw ci weeru gàmma la fa gonte saaw nee na keroog rocci na bu di daaro yaa def ko fa daarum nga fandaam ak siro yaa danaa la fa mos a jaar ba gànnaar caano ak sëriñ ba ji di muxtaar xam fa yeneen daal ba rocci buut yi yaarami sal xolli sa gën yu tuut yi danaa la wax lu ma saka caar yi nga xam ne bamba du moromam naar yi caano ak sësin la dem jolof njaay xam fa julu na du samba daal ba njaay daarul Quddoos la fa njaama ga sësin fa daaru Rahmaan la dëkkoon cëkk sësi ca weera tam xare caama la sësi la Bamba ñëw njuri bel tubaab yay las lasi raamoo ma siiri la waxoon ca wayiwam Cheikh Bamba lam wax booba doy na xalwaan fukki xat ak juróom la am fa njaareem ak nit fan man Bamba doy na maa yéem danaa la waxal baax yaam ci dox bii ci nit yaa di yëg lëf nga bonk bis bii danaa wax fu ma sa jaar caag sa si déwar di diri ji baxaama wam sa ji bii bis lagal na mu li mbakkee màggal moo jara màggal ku ci dem fa màggal ngir gaaw boo ko ndirew la màggal moo tax ku màggal mag rakkam laay sargal xaare ci yow ma sa trabion safar la Bamba wax màggal yi dal dane xasar yaasal na mu limatu nag ma ñaanal mu yor baa gëri ko yi muy saaban yaasal na mu limatu yow mi waada dogu mu wer ceng ba moraada danaa fi wëy lu fi gisaaw sakkoor caa xibaar in saara bi kay buur xibaar in ittihaad yi te juróom yaar ci jëri ji man la xem ak juróom yaar déggul ma wax la la waral mbaaxaan ja gannaaw dogal ba ca xadim ngeen waaja awaasu billahi mina seytaani yàlla ñu yàlla féewaleeg mbaaxaani ma wax la bis ba seyku bamba ñi bisee boo ko naa kiri caama kësësi bisu dibéer de nit di fan ca korewa la gonte kër man du mbaandeeg frère war ngi le mburu magam ja mbakke maane ca diggu guddi la ne jaas fanaani daaru salaam daaru salaam daaru salaam fëkkër borom gaawaani réew ñépp dog murit ak tiijaani xam fa xayeg bis ngan ngaraw tëbëski ngan ngiwul naa ko ca siidil mbakkem yeral ma marsiya borom gaawaani loola ko fàttali melo jinaani fukki nag ak juróom ci bis boo nekk xaali bi ma fukki bi laay sakk ba muy xayak bi si yëg na tey na rendi nit kuy taxaw jox tan ya ndax nu man di daan ne ko jaaraama mu jàppaat jaam jébbal ma am sëriñ ma mal borom saam nit ay juróom ñett ca weeru kore wa karal daa si ni laa ndeg fere yaa nit ay juróom ñett yuru bi tuuba tuuba tuuba tuuba daje bisab ak si ne wóor na boobaa la fee ko bamba wàcc daarul na naan boo kër daaru salaam mooy ndaanaan keral la daam fanaan si daarul ma naan maan te na baati boole ñam yaa ke naan nganga ma ne su koy xalaati duniyaa lu nekk xam na fa bi xayri sunniyaa moo tax taraawo baa nga daaru ma naan kenn du fa mar kenn du fa xiir ñëpp a ngi naan tabax yaag baraaga daarul ma naan dana gëndug tuubaa fu neex waay mu fanaan jili guddee jar di ko màggala ba daay ngeen rajaay Cheikh Bamba Muhammada jili guddee jar di ko màggala ba daay ngeen rajaay Cheikh Bamba ak Muhammada salaawa sallama alayhi laaw bilaal wasi bi wa man walaaw fekk na maam Cerno tabax laay taax yu mel ni jannatu nahiimi ngir baax Tiwaawan ak Kees ak Luga ak Ndakaaru lañ daa yeno yiri jëm si daaru Cheikh Modou Ndumbe Mbakke def na fay kër ci ndigalal Cheikh Bamba gaayan lay sikar Cheikh Ibra Faal Cheikh Ibra Faal Cheikh Ibra Faal wa Cheikh Ibrahima Sarr def nañ baay taax yére fen ñëpp ñi kaar lal ya mane du koy xiyaar baadoolo lal yaa waral mbaaxaan nga déglu loolu adda di woomal di ñu naa dem ba ngari moo de ba saase kër tey sab ko gore gannaaw dogal ba ci xëddiim moo ruuxale diggante bambaag ñoon ba moo leen féewale keroog ba seex bamba ba daaru salaam tàggoog borom gaawaan ñu joxante salaam bisub keroog la sant si di gaawaan mu jandi ay lal indi daarul mannaan mu seex ibrahima faal saadiq ba baabil muridiina kiliy lampam baam ca yooya fan la yéene dini gaay ndar ñi gën daay lal yegganoon fa doomi ndar fukki lal ak ñaar la ku nekk jënd ci ndigalal Seex Bamba lal yaa xand bàyyi Moodu Kabir kali lal bi ci nekk mel ni weer mbaa wuuroom ni buru di marmaati muy fiiru Seex Ibra Faal Seex Ibra Faal fa bale ba ci saako sëf ci gilim ngir suturaal xam naa ko ba ñu bawoo tamaaka jëm si daaru ba romb ngoog la fan ya jóg di waaru ñu sippi sëf ya bunt kër demba ngari ab daloon di waaye mbaaxaan di suri mun nañu leen ndekete ba wiilëm de làmba saako ya de làmba lal ya moo làmba tànk ya leen ni ay fetal la Seex Bamba day bëgg a jaar ngir yàlla bisul keroog la dal de xëy nem jaarim xibaar ko mbaaxaan dag yëpp di ko yim keroog la mbaaxaan dal di gis commandant xibaar ko biir yëmbar ma dal di téléphone borom ndarak borom dakaaru yi digg laar da wax mbaaxaan mu mel ni dëgg ca yooya fan lañ dal di wax kate yaa yëgal ko buur yëpp ñu waajal garde sir yëpp ñëw ci ndigalal maam Cerno di teeru Seex Bamba tabax tey borno sir yëpp ñëw ci ndigalal maam Cerno tey teertu Seex Bamba tabax tey borno Seex Bamba ñëw daaru ba weeru gàmmu gàmmu ga gaawara mu jóg di lëmmu ca yooye fan la noon ba tudd mbaaxaan di ko fa mbàkkeeg bàpp dal fay jaaxaan sant ba waa mbàkke lu mel ni campement ndekete Bamba laay fexeel mug naa ko naa mag ña takkal ko fa lu ma juróomi néeg wala juróom benn mu di lii gën a foog ci suba mbaaxaan delsi mbàkkeeg bàpp hande giraam njàmbur bilaayim kepp keroog la mbaaxaan woolu fee ko Bamba fa mbàkkeeg bàpp mbàkke jéppay bëmb Cheikh Bamba bañ yebal ca maam Cheikh Anta Cheikh Modou Guèye jëmooy ñu dal de gont bañ ñee mu mer de ko laa mer di du ma wax ak yéen abadan maay garde maa de borom réew mi te moom laa soxla nee ko borom ndar moo ma yónni soxla tey réew mi maa ko moom te donn naa ko te nit ak yaayu ma xam naa ko ba ñu ñëwee xibaar ko say ko bamba mu ne ko ndaw du suuru ma sam baay ba keroog la bamba gonte daarul man naan war ci karoot ga togg si di gaawaan ba ay sëriñ basiiru ba mu ñëwee ba jublu mbàkkeeg bàpp gaayeen na yoo ñele de daam ne wëpp mu ne ko mokkal xaji daa si mbii bi ci yéen muri dina ma ko jàngal ba ca mbàkke duudim mu ne ko mokkal xaji daa si mbii de na ma ko jàngal ba ca mbàkke doo de sëriñ ma ko jëmbay ma dëkk longoor ne maa ko mokkal bamba naa ko góor muy wax ba jot wa daamiran ci wa iwa naa ko loos daa im mu naa ko doy na maqraja xablal usuli mat la xaggaam naa non naa sumay noon jëkk ci lii wér na ab sow du takkati ci mbàcceeg daaru te ku fi ñëw sa xol su delloo waaru da dina cëpp wàcc jaar fa jàkka jaa borom jumaa ji julli fa ñaaru rakka xam fa magraja wóolu borom saam ak borom gaawaane maam cerno seexaa fi yéen ñeppay waane ñu ñëw mu wax leen lool sañee fu koo wax ngir ku ko diingat xale ku mbaate nga torox dal di ne mbëll génn mbaaxaan dal dal lox darab rabee def lool ma ne fu koo wax Cheikh Bamba ñëw tàbbi ci néegi mbaaxaan ne ana mbaaxaan mu ne mu di laaxaan ci caar ma ndikko ma dëkkoon fa sambe moo tanto mbaaxaan yaari fas ya gambe jëraa Birayima jëraa fi njàmbur na yor Sëriñ Tuuba ne Bamba yaay mbër mbaaxaan waxoon nañ la ne bul woo Bamba nga naa borom ndar moo ma yónni mbër ma nee na balak duum ak fetel laay digg fa daarul man naan kon danaa fa xàgg visité kër ga ba mu dañ ma dellu wax ko borom ndar siix yi yépp ay digg Bamba ne kenn tontul mbaaxaane dal dana ñokket moo borom gaawaani war ci karoot ga dellu daarul man naan ma am seen faati xëy li kaase ñuy naan war ci karoot ga dellu daarul man naan ma am seen faati xëy li kaase ñuy naan ñu te kaay fan noon ba dal di ndar di seeg borom ndar dal ya dëkkee dër dër keroog yaasoo na ba dellu jaaju dem ndar kalaame bamba mi fa saajo keroog borom ndar boole kooki kàcce sàndar mayaak ispaysi yaak ndaw gàcce commande nag alkaati yaak soldaar saa ñëpp a boo ndar dal di ñëw ca saasa mu boole ko seeg yëpp ak seen buur ya ak seeni dak kenn defatul ca réew ya ma ñan ca gànjool parce que naari góoram handa daram yëpp di bi ma puutaram ma ñanga gànjool te kanaari guuram handi dëggam yëpp di bi ma puutaram baraag ca waalo dal da jàll dexeyam handa dëggam yëpp di dikku soxya ñu woolu buur siin kumba ñam mu jiite kàngame yor xare ba ñuy si siiti ñu woolu baay mbayaar maneel mu wëy si ak ña ko booree si bi yëpp ay daw si ñu xoolu bar saalum mu ànd ak saalum ba mu ñëwi ngi si ñu faf ba ba te te jënd ci fan ca weer wa bisul dibéer la bambaxe ak leer yaa ay murit duma la wax xibaari ngir be léegi nigal ba xaaman la sa sin maa fekkee borom jumaa ji xëyee na njur bel yendu tuul ba tàkko saan mu gonti lii keroog ti waawan la fanaan Cheikh Baabu Silla bàyyi laamin Silla jokk baay sàkk wéy ngir yàlla moo tax borom gaawaan tabax fa kër gaa tuddee ko tuubaa tuul ne moo de kër ga alaaji bay Muhammadul Maamuna moo fa dëxal doom ja ku baax la moo na keroog ba Cheikh Bamba dene ti waawoon fekk sëriñ maru bëggee la jaaroon fara fanaan réew ñépp ñoo siyaara mu di ko tiijaan si dooni jaara ba bay sëta la tabbi gaala giiri keroog bisab altine la kenn du dóore yàlla rasulullahi ay jibiilu aloolu bëgrin ñoo ko yor moo kiilu keroog la naan suma gannaaw ak suma kanam ñi lee ma yoor ñoo maay bëggante fu ma jëm bàyyi sëriñ Basiru Mbakke ne na keroog la yendu kel ci biir première saxaar dañ day te sa yendu fay riir keroog la daam wax Cheikh Mamour Jaxate ak Njuubu Njaay war ñu le maa ngi koy waxati ñun murid yi suma yoon wi suma ñu dee Tuubaa saxaar yi dootuñu fa jóg su boobaa jumaa la day taxaw saxaar yi yuuxoo robinet yi wala ngaan kenn dootu laaxu tubaab yi ñooy taxaw mbooleem yoon ya ñooyee su muy murit keroog ñoo buur yaa sëriñ bamba nee wa man ke ni sëriñ minal fa jaare wa man xalaat ahli bi maayin daari dal di ne siix Ahmadi Diop ma dëkk Ndar yaay sama seere yaa Sëriñ Mbàkke Badar yéen laa bëggoon ngeen nekk boo fay jàngale waaye damay tabax jumaa baagali guddi keroog ganu boo tiraawoon rombi di xëy jim ga la ma ko waxoon ne ma yaam fii dana am fat ubaa waaye dana na fekk làq boobaa keroog la Seex Bamba daloon soro caro toog jublu teen koy jàng saara baqara ba mu yeggalee mu dégg saara Imraan ay borom Tuubaa ba mu yeggalee la woolu si di gaawaan dal di ni njuubu njaay wutal ma waane mu dellu xooxal ma borom gaawaane mu dal di siin xaali ma mar kumba foofa mooy kàll beem mu dal di wàcce foofa mu jox ko leetar ne ko soxla naa ko ne dal di dikk ndal xëlla foo naa ko mu fab dajeeg awaaji si di an kaa fangaay keroog ba bamba laata gont Cheikh Paati jiite mafandaay moo jiitu wan ko borom gaan këram moo jiito Cheikh Paate jiite mafandaay moo jiitu wan ko borom gaawaan këram moo jiitu këram la si danta dal di ñuy ndar mel ni ñaar da say ko bamba mooy mbër fekk sëriñ Tuubaa fanaani fi mbëri ca kër gu yonoon wala yoroon ne baare guddi talaata la fanaani ndar gi sin duñu ndey yëpp naa ko yaay gi yenn ngoro ko dal de bindal leetar hande borom gaawaan ñu jox borom ndar Cheikh Bamba wax ko bii daaru ma naan ay biriyaatona ba tëdd mbaaxaan keroog borom ndar woolu duudu sekk mooy bindkat bu koy bindal loon nekk mu ne ko nen mbaaxaan ak kumaandan suñu demee daaru danañ xam kang-kang alhaji Mor Fati Touré Madina moo wondi leetar ba keroog ci diina alhaji Mor Fati Touré Madina moo wondi leetar ba keroog ci diina mu jox ko maam Cerno fa daaral ma naam maam Cerno Fati Mbakke jox ko mbaaxaan keroog laa suñu burus ba ne tafax Cheikh Bamba riiki ay garaatam mu torox ñu dal di ko yiiti dal koy fole mu daw ba daw me dem ci abee xoole xangaate xaat na fu ne ndax mu folo xaat moom mbaaxaan ba mu ñibbisee la gën a far folle ko xaat xangaate xaat na fu ne ndax mu folo xaat moom mbaaxaan ba mu ñibbisee la gën a far folle ko xaat déglu ma wax la fan la Bamba sax ndar àll la ca xew nga xam ne kooka mooy mbër Cheikh Bamba moom kër gam danoon fa ndar géej day yëtti kër yu tegaloo ñu naa ko géej bis bu xëyee ba ñu di ñetti téeméer jox ko waaye kërug suuf ga ñu def ko seen reer mu di lu wëññeeti ñeneenti téeméer jox ko kërug diggal ga loolaay seeni reer mu di lu wëññeeti juróomi téeméer jox ko kërug ñetteel ga loolaay seen reer alaaji Cheikh Anta la koy teg ci loxoom mu teg ci seeni yoxo booba mooy loxoom ba muy xaay ak bis mbër ma dade gonta war pake jëm gànnaar lebul fa compte ay borom Tuuba lam saxaloon ca jàkkaya jumaaya ngir yàlla kenn mënu ko hikaaya lam saxaloon ca jàkkaya jumaaya ngir yàlla kenn mënu ko hikaaya ak la mu daa jox waaye ndur du ko lijjanti fi saayirin ay ña ko doon bejante xam ne bisu ba juma waa jumaa ja ne ko nga ñëw jiite ñu yoon yi waa ja dajale seen xaddiya dem yoon ne ko jox ko borom gaawaan moon di yët ko mu ne su dee loolu demal delloo ko ngir gan de jiite jumaa xam nañu ko sàkkaatumaak gan gu ñu jàppaañ njaam te saa njëfal gii wóor la réew mi mag ndaam keroog waa jumaa ja jooy banaa ko soo doon ko defe jot ñu naan banaa ko téeméeri junni million caayiru konte ñu jox la ko nga jot ci sa ruu Cheikh Modou Ndiaye maa bee bind loola yónnee ko Cheikh Bamba ma fay leen loola yal na nu buur yàlla defal ci Bamba lu koy fi xiine fegal na sanda amiina amiina ne leen amiina ci dara jaay muslimatun maymuna moom may xalaat baayam ba sos màggal gii bàyyi njàmme kene yàlla na boole booti mbooleem kër gii gaawala baayam xëye mbàkke baare soxna muslimatu mbàkke gaawala gonte daaru jëm gànnaar roy na la baayam bi ri woon ci réew mii bu dul ko nag moom du ma wëy lii man nii pendal mu gën tubóoy la jar naa raamal meetal ga moo gën kaala yañ xaraamal dégg nu ma wax la bis ba day ko bamba gonte fandar war pake ngir yonnen ba ministre soo daani ilal bi laani ngir bëgg remu ruuy fil jinaani ngoonal talaata tey ko bamba dugg la gaal ga ñu naan bëni fanaani dagana talaata day fanweeri fan ca weer wa duusi yangal naa ko fasangaak tàngoor wa ma wax la gaaya tantu daam jëm gànnaar xàndeeg sëriñ Tuubaa te ñëppay jàmbaar njëkkeel sëriñ xaafe rakkam moo jiite sëriñ mamar pendaay loxoom de xoote sëriñ ma samba xëri jóob si xëri jóob ay njuugu njaay mor xëri ñag may toggi ceeb bisul keroog la siix ma siise ndongo dikk taxaw si kanamam nim ndongo ne ko nga def ma nit sa takk ndeer bee ay borom Tuubaa foo jëm nu xàndante mayoor sa der bi mu ne ko dellul te dem nig ma daarul ma naan te nga xam ne maa ngi ñëw bi ismi rahman laa tabalu say an bi xëyri inni farim sudratun xubwalil fenni borom jumaa ji ne ko koy topp saa ndigal bàyyi lii ma tere loo sori sori yaa ngi man bu tuusuri koo xam ne doo topp ndigal bàyyi tere loo ma jegeen jegeen jegeen jaay ko soree ne ci sa boppam ak ne ci man ak ne ci man bokku ñaay fa yéen murit ci saa saman sëñ Bamba ne ko ku ne ci boppam ñu balaat sa bopp duñ yen ba uxran nga ko rëccal yëpp benn nga def lu baax ba dem jineeni wala nga def lu bon ba dem niiraane asanallahu min niiraani bi jaay xil xalqi fi haddanaane maa ni ci mbakki ni ku ne ci man man ne ci moom te yoor ko àddina ak àllaaxira faf dëkkoo ko rëmm ko sàmm ko ba koy jëfal ko jébbal ko njol makka mu far dëkkoo ko sëñ Tuubaa nee na ku ne fi man ngir koom yi ak saayir si ma jox la yooyo suma baatin del si yàlla ni man kaane yuridu la ma wax ca alquran laay def ma siise ne kasax sëñ Bamba moo wax ni li qawlihi taala man kaane yuridu harsa àllaaxirata naati loote arsi alquran nee na wa man kaane yuridu darsa dunia nutihi minha wa ma lahu illa qati min nisbin kawol be te ko del sa daara muri yaay waa Mbàkke ñeppay waaru sëriñ ma siise dal de dem ba xabbaan ca moom a xam mu bay fa boole yalwaan xamul lu dul benn dërëm ca mbay ma mu xam ne yàlla ko dogal ca xat ma mu dal di fa dërëm ba yóbbu gànnaar jox ko sëriñ Tuuba mu doole ko waar lay loolu muy ba muy ñëw Cheikh Bamba Cheikh Ibra Faal Cheikh Ibra Faal Cheikh Ibra Faal faal Cheikh Ibra Faal yónni si junni bis ba Serigne Assane Thiam moo ko yóbbu gànnaar ca ndigalee Cheikh Ibra Faal may jàmbaar Cheikh Bamba naan murid ya kaay leen seere ne junni bii dërëm bi daalaay seere borom dërëm bii yéene woon na junni te lu ma waay yéene ma ful koy junni ñeel ma sunu la sina yón de xoo naa yàllaa ko wax mooy fay mu deful ca ngoone naa taxabatin la waxoon te fepp te xam ne gugaa ëpp loolee foppo bàyyi sëriñ Basiru Mbakke ne dalaa xamal ne mooy borom ja saaw jàngali laa yu ko li man yi teew alquran moo wax ne inna la sina yón de xoo na maa lahum fi sabilillahi kama dali habatin an nabatat saba sabayela fi kulli sumbulatin miata habatin wallahu yulaayifu liman yasaaw wallahu samiun alimun keroog la Cheikh Bamba yónne waara Cheikh Ibra Faal mu dëkk ànd ak mbooloo walla Seex Bamba yónne waalo Seex Ibra Faal mu dikk ànd ak mbooloo Seex Mudu gi kol limal ñay roqi Ahmadu Lo Masamba Njaay ca waqe moom sunu maam Cerno la Bamba xooxandoo yi yaari Ibrahima bu leen leen toppandoo danaa la wax le leen sëriñ bi sant ba ñu demee gànnaar ku nekk ay sant na ngeen ma delluwaat te hubbe xol yee jëmee ci Seex Bamba xalam ci xel yi ma delluwaat wax leen xibaari gànnaar te nga ne ci siiri yëga bun muxtaar alla ca xew saade fi sodaane yeneen ti hadiya ba mbaxam bi laani la xew ci wuuya hando nag mbaxaana ci dara jaay xayral waraa hadd naana ba dëddëyu sam la hadumin xaatimi rabi di jaay mustafa inni asin yàlla tasaareel na ko mbooleem wuur yaa di kon sa daarooy ba galeen di siix ya ñaafoli nañu leen yenn wur ya jébbaloo ñaaxala ku bu wér yàlla wax du ñoppalu lanat liyal xuloobu wala daana Sëriñ Tuubaa nee na salaamani bilaanu wa sodaanu lam yalhuni amiru walax yaalo kala wala wasiiru wal hiyaalu Bamba ko wax booba ca réewam gànnaar buur su xaree ba dàq fépp lay jaar loolaa taxoon mu woy si daa teg rabbina lanu lanaa te moom du jàpp naa banaa ruu yëpp man Seex Bamba jàpp naa leen fi saayirin wa baatinin moom naa leen xam na ci ñoo xam ne danaa leen dàkko xam na ci ñoo xam ne danaa leen dëkkoo xam na ci ñoo xam ne danaa leen sëlbu xam na ci ñoo xam ne danaa leen yëlbu xam na ci ñoo xam ne danaa leen yóbbu xam na ba fa ma jëm ma boole leen ak rëbbu xam na ci ñoo xam ne danaa leen yóbbu ba fa ma jëm ma boole leen ak rëbbu xam na ci ñoo xam ne danaa leen folli réweki leen ba jéeni sa tàggalli ca mooma xat lañ folli noon bu mag ba rekki garaatam ya mu mel ni pël ba mu daldi de baadoolo daldi de yalwaan de dem ci har doom jo ñaan de xaaraan moom baaxaan kër yam xamoon mu jaay ko si di gaawaan ak naari guri yëpp far de laaxaan relwaan ak biir kamb ak lu góor doon sa su mbaaxaan yaa ngi alaaji seex daan na ko war suba ngoon relwaan ak biir kamb ak lu góor doon alaaji seex daan na ko war suba ngoon ca yooyaan la noon de dikki jébbaloo ca moo fan la noon de dikki jébbalu ca seexu bamba fekk séye si bulu mëllin fi buur yi bamba jàppee daaro na suñu wuy yëpp ñu tuddi waara bàyyi njàmme kale ma jëkk lim mbaaxaan moom moomoon yoon wa bamba ko jox Cheikh Ibra Faal moom yoon wa ndar la ko fekki dal dee jooy ba xaacoo tuubal ko raamal ko maroo di riccu noon naa la mbaaxaan ba ci lun marooxee keroog fa njur bël tey nanoo marooxee mu ne ko per xaaw na sax su tuubaloon Musaa Kalim keroog mu jéggal ko fa Daaru Xalsoom Abdul Xafoor la ko sëriñ bi tuddee nga xam ne muy jéggal li kulli xaddee fa Abdulaay xaar ma defoon la kam ja dellu ko jox Cheikh Ibra Faal jëwriñ ja li man ma sekk julli mori sa jóob ñoo jaame la door ya dikkoon daaru de toog li man ma sekk julli ak mor yi sa jóob ñooy doomi Lat Joor ya dikkoon daaru de tuub sëriñ ma sàmba mbakke moo nas rooya jébbal ko Cheikh Bamba ñëfal ko wuur ya Cheikh Ibra Jóob taarif la doomi Lat Joor Cheikh Moodu Ndumbe Mbakke yoor ko mooy góor bàyyi njàmme kanem far la faal ak ndel la faal ak gañ si jébbal ko Cheikh daati gër mi yaa bëri foofu saati mbóoj boole jekkum ba ceremaan yii gella war dootul lekkati alamaan mu jàpp baay mbayaar manel ak doom yo jox leen borom gaawaan mun na seen rooyo fa bu ne njaay ak sidi njaay jébbal leen li dekkam bi Mustapha mu yoor leen foofu seen nijaay ahmadu mamma korejo jébbal ko bi Mustapha xat xaraja si Abdul Abbas ak sëriñ Omar ñaan maam ca na faati Mbàkke xam na lu mu ñaan bàyyi mudu kabir kare ma kodd sàll mañ sa mbay ma samba saa ngoone ñoom xam nañu seexi Bamba bar saalum ak bar jeeg wa bar jaat bar ngay xam nañu seta maam balaay saa kumban du seen mbër ma ngir ba la jébaloo ca Bamba mbër ma Cheikh Samba Tukulóor la Bamba yónni mu jox ko naaru bu wu weex wuy sànne ca moomaat la dabi tukki saalum waaye de ma jébbalu ci moom naa maalum xaal bu ñu moom solal joxoon na boppam alaaji seanta tofel ca léppam neel ñu ko boore moo dikkoon fa Bamba naa wacce naa dina tey laay bamba mu ne ko yaa ko wacc ngir mbonam ngee amaa dinaa la wacc ngir sa mbon ngee mu ne ko yaa xam lépp moo tax maa ngee jox naa la saaru ji te maa ngee yaa ngi keroog gisan njébbal ma xam nay sëndee Cheikh Bamba nangul na ko mu doon na far bi nee na ko yaa ngi maa ngi buur yàllaa ngee ay na ko bore xam nga ne muy buur nangu naa njébbal gee sëriñ bi jiyoog ndigalal boroomam ngir bëgg a topp ndigalal moroomam demal te topp ndigalul buur yàlla te daw la muy tere nga xam ne mbër la ma di lu dolli lëf ca buur ya jébbalu kon tey nga xam ne Cheikh Bamba sebulu bàyyi mudu kabir kane ngeen mbutu buur a pël ba woon fa Kaolack jébbal na sëriñ Basiiru rooga muy lox sëriñ Basiiru fam na denc doomam yaa ji ban Cheikh Bamba moo bëri ndam sëriñ Basiiru nos na ruuy saalum jébbal sëriñ Tuubaa ne leen ko maalum ma wax la tuur te xaale agay puuri yo ando nañ baaxaan ca ay kajoore nel xaali baaba muy firi nasaane waluy dun nawaa ak xar baaya ba mu ñëwee Cheikh Bamba dal koy dénk mo dali jiblu mo dal koy dank yaa xaalikul fii diini baabal xëyri wala laa takun fi diini baaba sayri keroog la xaali na ko bamba ko xaali mu daldi jébloo mu boole koog sembadu bu mel noppalu lii tax ba Cheikh Bamba yebal ko ngaabo mu sanji fa kër dana am ci yaabo Cheikh Mbàkke soxna la ko Bamba sàkkal Cheikh Hamza toog Cheikh Ibra Lo de màggal Cheikh Ibra Lo denc na doomi Bamba moo de xalifatu Sëriñ Masamba yàlla nan bokk gudd fan baagali suñu ñii bët ci darajaay ngay màggali daf ko noon dongoom ya gumbo gu jiite yoon doo ma njàccaar léegi ñu xëy daanu ca kàmbu bàkkaar gumbo yi njàccaar lanu doon woon yoon waa ñee na mëlëf kuy di di jiite ngir yaa dugg na ko yaa xaay te moo la xëye xaay de dikk ndar de gonte ndar fanaane xaay gonte na ndar dal de fanaane dagana waalo de walwali ne ndar ma dikk naa keroog ba say ko bamba wàccee dagana seef baa nga naan gaaraama rabbu dikk na mu wàcce kër ibrayaan di seefu waalo ñu naa ko doomi doomi hasta waalo tubaab yi foodi ay yuuma gal koy teeru robino yaa ngay wala ngaan bay tuuru lampe yi électricité ya dal da takk ay lampe gaz yaag foto foo yañ takk leer ga nen nañi guddi ga mel ni njaloor foo xana leer a guddi badar mbaa lumière balaa dee ak bëbër ya ak kasteer ya ma ne su koy xiraar sakkaareer ya bañ laaj ak bul ya ànd ak bool ya mburu mu ànd ak jën yu toyaat ceeb yaa mburu mu ànd ak soos ba ak bulet ba ak pompateer ak macaroni ba ak bulet ba keroog la Cheikh Ahmadou Diop na yëg daam jébbalaat jébbal ko doom ya naa ko maam mooy baayu Cheikh Diop moo du Lamin Dagana keroog la leen jébbal sëriñ bi wàcc naa mooy baayu Cheikh Diop Moodu Lamin Dagana keroog la leen jébbal sëriñ bi wàcc na ci léegi Tuuba dootu dellu Dagana kër yi nga njur bel yëri man la dëkk na caara Bamba gëlu bi téere bind caaw bëy mu def ko seera bëy wa muy wa mujj bind daaru keroog la jàppaat xalimbaam ngir waara sëriñ Tuuba ne li dul karima waa damali xara haa saalu kaadalaaji fil quran soppi na wuyu mu woon fa daaro ngir leeri waay dëgg na ñëppay waaru mu soppi na wuyu mu woon fa daaro ngir leeri waay dëgg na ñëppay waaro yoon yëpp Seex Bamba laalu xalimbaam wala daxaam lu dul keroog jaaraama daam ku yeddi laaj Sëmadu Lamin Dagana moo ma ko doon xiraar waxam ji dëggu na bindal ma woy ba mu woyal baayam ba ba muy musaafir daana yàgg ak Bamba rek li jaay ma ngaa sami kana kunni ilayka xaarijan min Dagana Bamba ko baayam ba muy sufiyanke ba dem këram mama di ko na Mbàkke Cheikh Bamba dellu ko fa woy ngir ma yaa alkalkalul yow maa di bopp woy xaala Seexul Xadiim Mbàkkiyu li xaaliqihi tafsiru Ahmadu Diop Dagani wala di seyxi Mouhamadou Lamine Diop imaamul jamii fi ma jigi ngir bilin raasi abiyan borom Tuubaa bindi ne alkalkalul yow ma mi ni saara ma jooba karhan li tawdihi xiili Ahmadan jooba inaaba alqaaba hatta saara saabuhudin falan yasay lala dayna حول مهجوبة لكن حلمت بأن الله مالكنا متيري قال أمر كان مجوبا فابلو يا إلهي نيل مطلبيه فإن بمن وفتح له كل باب كان مجوبا ويبين لدفن جخبا يخمدني دبكون جنجارم تسوبون دام تبوبا ربي بجاي مصطفى ومن دري saraa ubbi halal xuruj min dari bamba ko alaaji maajoor siise ñaani maas kamara duñ ko siise dañu ñoo xibaari xibaari gànnaar bàyyi muuru kabir kale gannaaw xibaari daga naan ndar fa mu jaar dañu ma doxlaate xibaari gànnaar gannaaw xibaari daga naan ndar fa mu jaar Cheikh Bamba moom gaa wala gonte daga na dugg ca gaale ndox ya jàll xàgg na Cheikh Ibra Faal boole na ko gay saadix fan ya mu xam daga na soobu hul dex xam fa ñenenti fan ñu war karaas gaa mu da caw war da ramb waa tetes ga sëriñ ma mar giy moo du gay làmbal no xay gay rakkam ja moo daa kor no boole ci ibrahima baasin mbër la tegal mu tafaa ngammu mu da saa xaadir la ñu ne yenoon koros ga xaadar bamba ci ndigale ci xisa faal saadir ba seen moo du njaay jóob moo du gee karaasa ak njugu njaay ñoo taxawoon ci suusa ñoom la borom daaraan joxoon Cheikh bamba ñu di koyet koros ga awri heram ba boobee la maam Cheikh Anta jënd kër ga fandar fa la du siixee naan fay warga cere layak cere nga mag maraakiis la siidi anta daa dafa nguroog soos rax na giliim rendi na nag rendi na baa sakka bee xara ganaar nel marhab baa lam tax fandar al daga naa ke ganaar masula umpantee ki siidi muxtaar keroog ba muy dem la ko jox ab leetar ne ko nga yor murid yëpp xam nga tiitar murid bu ñëw boole liggéey ak jàng na dem fa maam Ceerno te bum fa jàng kuy tërbiya na dem fa Seydi Moxtaar wala fa Cheikh moo di ndumbeeg Cheikh Ibra Sarr Cheikh Ibra Faal Cheikh Ibra Faal Cheikh Ibra Faal Cheikh moo di ndumbe Mbakke Cheikh Ibra Sarr nañ ñu te ñépp jëkki te bu ma kenn dab ci réewam gànnaar Cheikhul Xadim ne li feer ba naay toog woote ñuy siyaara leetar yi wër na Cheikh yi duñ ko fàttee bàyyi njàmme ke ne bindam sëriñ Ibra ca laa ko sottee ca yàlla nee leen ca xibaare bamba mënee su koy bind xajul ca xol ba mbaayi mu kabir ne dee su ko jeexal mooy dunu rasoolo cay sëriñ bamba dee su ko jeexal mooy dunu rasoolu jaloor yaaqal baaxe dootuñ suuloo dee su ko jeexal mooy dunu rasoolo borom Tuuba dee su ko jeexal moo di nuyu de suulu jëloo yaakaar baax yi dootuñ suuloo Cheikh Bamba julli mësa ñaaro rakka ñaanal sa yiw mi ngërëmal njol makka kera ba nun kera ba bambay jàll dexe yay wala wala kera ba bambay jàll dexe ay wala wali du sey jalaaño yéene naa ko yaa wali suusangi sant yàlla ak garab yi ak dex ya bamba kuus mu gis leeram yi jinne ya sabbal ko malaaka ya sabbal axalul badar jundere bi di ko baal سلام من في البيت والبئر معها عجل بئرهم وكلا جماها سلام من الجارة بذبين في خدمة لسيد المدينة سبحان من الجب في النهار ليلا وليالي في ليالي بامبا كوخ جنت سفر أكبادا دوكو تري بلمتو كوكا لادا كلا بامبا جل moolee di ko joow daganaagu waalo bara ñëpp di soow kala la bamba dellu bindab leetar de yeetaraat lam di yoon muy tiitar jébbal ko siix am na du loon moom dagana ne ko bu kenn ñëw waaye damaa xar sakkana may naa la yoon digal nga toog fa daganaa ngir ku ma yónni ku ma woo ba dikk na foofee la sax ay weeri weer yooyu yàgg na moo tax ñu naa ko moo du loon moom dagana bàyyi njàmme kani wax jile nag Muhammadan Turé ma ko xibaar mooy bëgg ni ga Bamba moo dem gànnaar ñu wax jile nag Muhammadan Turé ma ko xibaar mooy bëgg ni ga Bamba moo dem gànnaar gaaw ba Bamba wii di weedeel la fa ñëw doon bëgg a dugg kuré kër bariyaan ñëw kër bariyaan jaw Cheikh Modou Lo Dagana moo ko xaaye wan ko mbindam Cheikh Bamba moo ko baaye loolaa taxoon mu toog ba taax yaaye mbooj sax ci ndigal mbaam fa sol nga faati mbooj ne ko lu waay réy réy ca yeewam soo daan bu ñëw te xooxuma ko réewam bi daan ma wax la gàddang naar ga bambal nekkoon baram kankane baam yeneen taat ga gànnaar ngir kun kun fa yekkoonu xaadani dil bari wal bari bil ma jaali mi lal badre ngir bëgg a rocci booti naari day maan yóbbu ko Tuuba jox ko Daaru Rahmaan Cheikh Bamba gàddang naar bu tudda adda baay la jakka wàcc naar ya naa ko yaadi waay yaaram ya jóg di ko xëccoo naa talla ko nekk naa ko marhaban talay laa ko nekk naa ko sama kay ma ngay jaar ngir maa fi nekk léegi Sidil Moxtaar mu dal da wàcc foofu ca digg kër ga ne màkk jublu penku mel ni gargaa yaaram yaaram la sar xolle sa gan yay waaraw tabale yi jiin mu mel ni buur gànnaaraw yaaram lay sar xolle sa gan yay waaraw tabale yi jiin mu mel ni buur gànnaar ngubbi seen xayma ya galee tante ya génne borom mbal fëre buub lu xëtt yaa dal dal la tappe ya ak tuur burte ya angege naa da dénen di karba ya dal dal la Seex Bamba ratt naaga yaa rax ci gilim ñu duuf ya xaafra xare ya réew yene ber meew ma ang baanig moom ak yamba ak warga wa ak tàndar moom léppay jëlaañoo ak sikar say joli fa fuuyo fuur mu indi seen yay xolli ñu daldi yónnee ndaw ci Sidi Moxtaar mu wax ko ci Sëdiya Situ Moxtaar mu wax ko ci Soodu abi Sharif boobee la daldi def wéyal Bamba yaaram raw soodaan ci xeeti bernde moo tax mu sol leen leer ñu naan ba mandi Cheikh Bamba jox na leen gilim ñu leen di Sëriñ Matar Penda ko woomal indi jox leen ba xaalis bu xànd ak piis woote borom mal fayo piis yi may lu ade di yet ko Bamba son mi daadi